الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا bisab tey bii bis la ci bisi yàlla yi mu ne bisab tey bii bis la ci bisab yàlla yi alquran mi ngi wax ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna benn bis ci bis yi mu ne benn bés ci bés yàlla yi ci bési yàlla yi mi ngi mel ne junney at ci li ngeen di compter mu ne mi ngi mel ne junney at ci li ngeen di compter kon nag fii lu fi nit def dafay fulu. mu fii nag lu fi nit def dafay fulu. ñu danañ daje. mu ne ndax jullit ñi danañ daje. taar taarlu. te taarlu. bàyyi yëpp. bàyyi yëpp. te yàlla dara lu may topp yàlla ak ut ngërmaaneem. mu te bàyyi dara taxu koo jóg lu may topp yàlla ak ut ngërmaaneem. kon nag ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne. mu kon nag mi ngi sant yàlla bi nga xamee ne. jox nañ farata yi. mën a joxe nañ farata yi. bëccëg yi or nañ ko. mën a bëccëg yi or nañ ko. muy farata. mën a muy farata. guddi yi. mën guddi yi. ñu or ko muy sunna. mën a ñu or ko muy sunna. am na xadis yonent bi sallallahu alayhi wa boo wax ne. mën am na xadis yonent sallallahu alayhi wa wax ne. mu ne ku def benn benn benn kii benn farata ci ci ci ci rama weeru koor. mu ne képp ku def benn farata ci weeru koor. mi ngi tolloo ku def juróom-ñaar fukki farata ci ci lu dul weeru koor. mu ne mi ngi tolloo lu toll na juróom-ñaar fukki farata lu tolloo lu bokkut ak weeru koor. mu ne koo xam ne def nga ci benn. mu ne koo xam ne def nga ci benn. benn sunna. benn sunna. mi ngi mel ni. farata ci du du du weeru koor. mu ne mi ngi na ku def farata te du weeru koor. weeru koor. mu ne weeru koor. ay ngëneel yu bëree ngi ci. ay ngëneel yu bëree ci. moo tax yàlla tànn ko. mu ne moo tax yàlla ci boppam tànn ko. santaane bu nekk am na pay. mu ne santaane bu ne am na pay. waaye ne weeru koor man man maa ko moom te man maa koy fayal sama. mu ne waaye weeru koor man yàlla maa ko moom te man maa koy fayal sama bopp. benn benn fukk fukk la ciy gën a la ciy fay lu mu tuuti tuuti. mu benn sunna rek fukk la ciy fay lu mu néew néew. sàkkaa lu dem ci mbaax ak yàlla gi nga xam ne amul limite. mu dem ci mbaax ak yàlla xam ne amul limite. weeru koor. mu weeru koor. yàlla moom la tànn ci weer yi. mu ne yàlla moom la tànn ci weer yi. génn ci. wàccee ci alquran. mu ne mu wàccee ci alquran moom yàlla. alquran mi nga xam ne mooy suñu constitution. mu ne alquran mi nga xam ne mooy suñu constitution. jafe-jafe yi ci àddina bi yëpp. dañoo bàyyi liñ moom rek di di di lañ moomul. mu dañoo bàyyi rek liñ moom di jéggaani loo xam ne moomuñ ko. jël ay luwaay romané. mu jël ay luwaay romané. ak persi ak persi yi. di roy loo xam ne. mu di roy xam ne. nit rek nit ñun moo ko ñoo ko def. mu ne nit ñun moo ko def. li ëpp ci luwaay yi nga xam ne moom la ñuy dogal ci àddina bi sax. mu ne li ëpp ci luwaay yi nga xam ne moom la dogal ci àddina bi. ñu ngi koy wax luwaay xumara bi. mu ne bi. Firawna yi seefu Firawna yi ci Firawna yi seefu Firawna yi um, ak wala wala ñuy wala muy roman mu ne wala muy roman wala loo xam ne sax mu ne wala loo xam ne sax Égypte Napoléon moo ko def loi bi Napoléon moo ko def mu ne Égypte bi Napoléon moo ko def te ba koy def dafa dem Misra ànd ak savant yëpp ñu dajewee mu ne te ba koy def dafa dem Misra ànd ak savant yëpp di def ko foofu lañ ko téye civilisation bi ci l'islam yëpp mu ne foofu nag daal di sañu ko mu ne mu ñëw nag daal di sañu ko. te ñun ñoo ko moomoon. mu te ñun ñii ñoo ko moomoon. nag bëggee dellu jël suñ yëf. mu ne kon nag su fekkee ne bëgg nañoo dellu jël suñu yëf. bañ a bañ bàyyi liñ moom. mu ne bañ moom. di ko royee ci ñi xam ne dañ koy firee nu dul noonu. mu di ko royee ci ñi nga xam ne dañ koy firee nu dul noonu. suñ delloo ci alxuraan rek kon dafa mel ni dellu nañ ci cosaan ba. mu ne bu fekkee ne dellu nañ ci alxuraan rek dafay mel ci yëpp def na ko ci alxuraan. def na ko a alxuraan. mu ne teem def na ko ci alxuraan. te boobu. te boobu. téere boobu téere boobu yonent bi muy ujji boromam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ujji boromam nee na maa goo xam ne mu ne yonent dafa ne maa ngi leen bàyyee buum goo xam ne cat lii mi ngi ci seen loxo cat lii mi seen loxo cat li ci des mu ngi ci loxo yàlla cat li ci des mi ngi ci loxo yàlla su fekk bàyyiwu leen ko du ngeen du ngeen réer mukk mu ne soog bàyyiwu leen ko rek du ngeen réer mukk ko ma buum wax ñu ko ñu jàpp ko suñu fukki loxo mu ne yow wax ñu buum ko loxo mu farataay yàlla yi ak sunna yonent yàlla mu ne mooy farataay yàlla yi ak sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mooy eh, alquran bi wàcc jaar ci jibril mu jaarale ko ci yonent yàlla muhammad mu ne yàlla yi mooy alquran bi wàcc jaar ci jibril mu jaarale ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunna bi mooy ngërëm moom bi mu ne sunna yonent bi mooy ngërmaane yàlla mooy mooy ngërmaaneel yàlla ba mu alxuraan di ci ñu ëpp jànguñ. mu bi alxuraan di wàcc ñu ëpp jànguñ. mu daal di indi ko moom jaarale ko ci yonent bi. mu ne mu daal di koy wàccee jaarale ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ne roy leen ko. mu ne roy leen ko. lu mu def rek. mu ne lu def rek. soo ko delloo soo ko delloo ci cosaan alxuraan la. mu ne boo ko delloowee ci cosaan alxuraan la. liñ bind mooy alxuraan. mu ne liñ bind mooy alxuraan. liñ pratiqué mooy mooy sunna yonent bi. mu ne liñ pratiqué mooy sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu ñoom ñaar duñ mës a uute. mu ñoom ñaar day duñ mës a uute. ngi ndokkeel umma islamiye yëpp. sëriñ bi ne mi ngi ndokkeel umma islamiye bi yëpp. di di di ndokkeel itam këri diine yi. mu ne mi ngi dellu itam di ndokkeel këri diine yëpp. sang yi nga xam ne. mën ne sang yi nga xam ne. seen bàyyi ak seen maam yi. seen bàyyi ak seen maam yi. ñoo ñu fàkkaloon lii ba ñu ñëw aw ci. seen bàyyi ak seen maam yi day ñoo ñu fàkkaloon lii ba ñëw aw ca. moo tax lislaam ñëw ba fii. mën ne loolu de moo tax lislaam ñëw ba fii. réew yu bëri lislaam jaasi la ko ubbee. mu ne réew yu bëri lislaam jaasi la ko ubbee. waaye waaye senegaal ak ak kii West Afrique. mu ne waaye Sénégal ak dañ leen a convaincre rek. mu ne rek. muraabituuna yi na ne muraabituuna yi ñoo jógoon ca jaara ca Okbatu ibnu Naafiq mën na ñoo dugg jaara ca Okbatu ibnu Naafiq ak Taarix ibnu Ziyaad ak Taarix ibnu Ziyaad ñu ñu ñu dugg di dugg di ubbi ba ba ba ñëpp dugg mu ne ñu ñëw ba ñëpp dugg ci lislaam moo tax li nga xam ne ñun ñoo ko tànnal suñ bopp jëlal ko suñ bopp mën ne loo xam ne nag ñoo ko tànnal suñ bopp jëlal ko suñ bopp ñi nga xam ne dañ koo nëxal dugal ci li ci bokkul mu ne li nga xam ne dañ koo waaye nañ topp topp ñi nga ne mooy mooy cosaan mu ne buñ topp ñooñu mukk bi ne mi daana wax ne mu bun Xattaab ci jamonoom mu ne bun Xattaab ci jamonoom suñ xaajee àddina bi ñetti xaaj benn ceer bi yëpp dugal na ci lislaam dugal na ci lislaam te daf ko cee dugal ci convaincre ci loo xam ne dañ koo bëgg mu ne te daf ko cee dugal ci convaincre leen ci loo xam ne dañ koo bëgg te mu ne moom Omar ibn Khattab xamutoon lu may lu yàlla santaane mu def ko lu mu tere mu bàyyi ko mu ne te Omar ibn Khattab xamutoon lu lu yàlla santaane mu def ko lu yàlla aaye mu ba ko képp koo xam ne mu ne képp koo xam ne yaa ngi ci diine jooju yaa ngi ci diine jooju yaa ngi ci yoonu suñu yoonu Omar ibn Khattab yaa ngi ci yoonu Omar ibn Khattab Omar ibn Khattab mu ngi ci yoonu Aboubacar Saddiq mu ne tax Omar bun Xattaab mi ngi ci yoon Aboubacar Saddiq Aboubacar Saddiq mooy moom itam mooy mooy moo moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne te Aboubacar Saddiq moom de moo doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran am koy mel mel melal mu ne alquran de moom koy melal saani yes nee ni mooy ñaareelam ñaareelam bi mu ne moom de moom mooy ñaareelam ñaareelam bi dañuy gàddaay mu ne ba muy gàddaay moom mooy moom moo moom moo moo ànd ak moom mu ne moom de moo ànd ak moom ba yonent l'islam wàccee mu ne bi l'islam wàccee dëgg la xadijatu moo jigéen ki njëkk dugg ci lislaam mu ne dëgg la de xadijatu mooy jigéen ci njëkk a dugg ci lislaam ndax moom moo doon soxna yonent bi mu ne moom de moom moo nekkoon soxna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam altine lañ yónni yonent bi mu ne altine day lañ yónni yonent sallallahu alayhi wa sallam talaata ñoom ñëpp ñoo ànd julli fajar mu ne talaata mu ànd ak ñoom ñëpp jullandoo ñoom fajar àll yu itam mu ne àll yu itam dañ ko séddoon yonent bi mu ne moom de dañ ko séddoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax seen baay mu ne ndax seen baay dafa bëri woon ay doom te te njaboot mu ne dafa bëri woon ay doom lool te njaboot moom yonent bi mu ne moom yonent bi dajale ay mbokkam mu dajale ay mbokkam ne leen suñ baay yi dafa néew néew doole te dafa njaboot mu a suñu baay ji lee dafa néew doole te dafa njaboot kon nag nañ leen séddoo njaboot kenn ku mën a jël ñaar jël ñaar ku mën a jël benn jël benn mu a kon tey nañ séddoo njaboot gi ku mën a jël ñaar jël ñaar ku mën a jël benn jël benn moo tax ali moom yonentu moo ko féete woon a ne moo tax seen ali moom yonentu bi sallallahu alayhi wa moo ko féete woon di wàcc ci moom sax booba géwéntagul mu ne bi lislaam di wàcc ci moom ali mu ko mu yonent bi ne ko sama borom moo ma yónni ci yow ak mboolem mbindeef yi mu ne yonent ne ko yow Aliou sama borom moo ma yónni ci yow ak mboolem mbindeef yi mu ne ko xaar ma ma ñëw mu ne ko xaar ah, yonent xaar ma ma ñëw dem ci baayam mu ne mu dem ci baayam ne ko man kat sama mbokk bi indi na indi na wax ju wax ju diis mu ne ah bàyyi man def sama mbokk ne na xabaar bu diis wax ju diis mu ne ko lu wax mu ne ko lu mu wax yàllaa ko yónni mu ne moom de nee na yàllaa ko yónni mu ne ko loo ma digal mu ne ko loo digal yow baay lu mu yàgg yàgg yàgg bul tàggoog moom mu a ko man de li ma lay digal mooy lu mu yàgg yàgg bul tàggoog moom mu ne ko dégg naa li nga wax mu ne ko kon dégg naa li nga wax daal di ñëw jàkkaarloog yonent bi ne ashhadu an laa ilaaha illallah mu daal di ñëw moom Alioune jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ashhadu an laa yàlla xool julli ñi bëti ngërmaane yàlla yàlla xool julli ñi bëti ngërmaane ci ñi nga xam ne ñu roy ci ñi nga xam ne boole ñu ci ñi nga xam ne mu boole ñu ci ñi nga xam ne yàlla yàlla yundu na leen yàlla yundu na leen wax nañ ko léegi ci ayit gi mu wax nañ ko léegi ci ayit gi mu ne bis yu mel nii ñëpp war nañoo génn mu ne bis mel nii ñu ñëpp war nañoo génn yàlla amut barab mën na yàlla amul barab waaye nee nañ dana tiim ni ñëpp mën ne waaye nee nañ moom yàlla dana tiim ni ñëpp ngir ngërmaaneem wàcc ci ñoom mu ne ngir ngërmaaneem wàcc ci ñoom yàlla na yàlla na ngërmaaneem wàcc ci ñoom yàlla na yàlla def ngërmaaneem wàcc ci ñun yaa rabbi Sénégal gii te Sénégal gii yàlla bëgg na leen yàlla bëgg na leen bëgg boo xam ne mbëggeel boo xam ne amul benn sikk amul benn sikk soo demee Màkka wala nga dem ci dëkk arab yi mu ne boo demee Màkka wala nga dem ci dëkk arab yi doo fa gis dara loo xam ne lu éem la doo fa gis mukk dara lu la éem waaye waaye xeeb nga leen mu ne waaye xeeb nga leen di def kon nag yàlla nañ doy loolu ñu am mu ne kon yàlla nañ doy loolu ñu am yàlla yàlla indi barke ci Sénégal yàlla yàlla indi barke ci Sénégal yàlla yàlla dàq fitna yàlla yàlla dàq fi fitna xëccoo yeeg ŋaayoo yëpp xëccoo yeeg ŋaayoo yëpp yàlla ko fi yàlla soril yaa rabbi loolu yëpp dañoo soxla loolu du wut suñu yëf rek mu ne dañoo soxla rek li nga xam ne du suñu yëf waaye suñ delloo ci liñ moom mu ne waaye buñ delloo ci liñ moom li ñu war ci suñ digganteeg suñ borom li ñu war ci suñ digganteeg suñ borom mënuñ koo jeexal guddi mënuñ koo jeexal mënuñ koo jeexal guddi mënuñ koo jeexal bëccëg ma zalika àlallaahi bi aziz wa ma zalika àlallaahi bi aziz fatiha salaatul fatiha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 سبقنا أسر الأقبل أقبل إلى صراطك المستقيم على آله حق المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبقنا أسر الأقبل أقبل إلى صراطك المستقيم على آله حق المقدار العظيم subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliin